moom lañu fi gis mu incarne Benno Bokk Yaakaar xam nga dafay am solo moom mu incarne leadership bi di ko liggéey ñun ñu topp ci gannaaw ñun bu ñu toppee ci gannaaw ku ci nekk ñun ñu topp ci gannaaw ku ci nekk xam nga li nga liggéey day mel ku jël P xam nañ ne kii jël 2 xam nañ ne kii bu boo jëlee 3 wala 4 bu ñu boo jëlee 2 bu ñu joxee njëgu am naa ne bu boobaa yaa yaakaar ne réew mi dina jël 2 bu réew mi jëlee 2 nag ci kàttanu borom bi nag ñu jox ñu maire est